maa ngi si ça va ah préfet Baye maa ko bàcculoon ne ko su gars ba delluwaat ñu ñëw andi li gars yi ndëgu. di remercier. parce que ñun ñoo bokk banlieue mhm. te comme ni ñu koy waxee rek. Mhm. Euh, nit moom loolu la sa askan jox. Mhm. rafet na nga delloo leen ko. te ñun amuñu lu dul askan wi. amuñu lu dul sénégalais yi. et je pense que ni day rafet aussi ni ni nekkee ci moment de bonheur mu neex les mhm. les aussi ñu dellu arrière en arrière tuuti rek mhm. xalaat ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci hôpital yi mhm. ñu nekk ci prison yi wala ñu tëdd feebar te mënuñu jóg te ñoo ñu ñu bokk ci société bi peut-être tay bu ñu ñëwee ñu gis ñu yalla mëna dogal ñu tané donc looloo waral ren ñu ne vraiment nañu ñëw fii roi bu doyen hmm. ñëw seet si malade yi hmm. saafante ak ñoo ñaanal leen hmm. ñoom aussi ñu ñaanal ñu ndax comme que weeru weeru yërmande de bu baax weeru weeru jàmm la donc loolu tax ñu ñëw fi tey ba pare kontaan nañu trop sëriñ bi ni ñuy aussi tëju leen bunt yi daal waaw kontaan nañu trop bismillah jërëjëf léegi ñu ngi ci liggéey bi ba d'accord vraiment en plus là on wala gars yi bàyyi la ñu fi mu nii. waaw li ma la gisee rek yow. voilà docteur Seck ah moom moo géré casserole fii docteur Seck. docteur mais ça va bien. ça va bien. ça va bien. bien merci. mais maladie duñu nangu filmé leen. non non non duñu filmé voilà. yàlla gaaw fukki boppam. waaw na ngeen di jaar ziare leen ñaanal leen aussi donc def rek benn geste symbolique la nga xamante ni moom dafa tëdd. Muga no soko kwenye muga tu menisha sehemu yugara kama kimikati agwajina asho mwasha nyo sia sile mbapare nyana sile kuske nyana kisa soba da menisha sehemu yugara Amin. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbi. sa lépp yomb ci saa yàlla bu na ne ah waa geste symbolique la rek ah yàlla na amiin yaa rabbi. il faut que gaaw a maa ngi demoon. yaa ngi doon saa rek saa yi. ñëw fi kay wóor na yàlla ci saa bi neex nga ciy duggee. billaahi. ay daa mel ni kay waaw en fait hôpital waa bu doon dafa am ay ay donation yu ñu rek mais après après d' accord. incha allah. lu mu bu gaa rek dinaa yëg sa kaw de. donc ñëwoon naa fi sànq ba pare. ok dañuy mottali. ok. Cura. maman na ngeen def. ça va bien. fan la ñu nekk. voilà. waaw ñu ngi ziar waay masale waay masa dañ leen seet si woon rek pour ñaanal leen vraiment yàlla na yàlla daaw fëgg seen bopp ngeen dellu seen njaboot yàlla na yàlla fëgg seen bopp ngeen dellu seen njaboot te moo mel ne ñoom ñëw rek seet si leen vraiment يا الحب مع سنان سبعة يعني تعود هيك في سن بقى وصلنا ها dimbali soxna si maa ngi jàppale masa masa masa yàlla na yàlla gaaw fëgg sa bopp waaye yàlla na yàlla gaaw fëgg sa bopp salaamaaleykum soxna si naan maa ngi tane waaye nag si leen waaye dañ ñëwoon seet si leen rek pour jàpp jox ko ko ah dañoo ko ko jàppale ah waaw ci ordonnance yeeg yooyu yal na yàlla daal jox ko seen bopp waaye ah mos si leen waaye waaw maa kumba. yal na la war ay déwén ay déwén yu bëri. yaakaaroo Pikine ba woo Pikine. yal na la war déwén yu bëri. parce que yow yow kenn doon naa amuloo Keda. amuloo Keda parce que ko wax léegi yow amuloo Keda. yow amuloo Keda. gannaaw sama gars yi. oui. ba bandi la kii. loolu fii salle d'accouchement la fii. salaamaaleykum. waaw benn mbuus. kii moom maire bu yàgg la moom. maire bi ah kii nga fekk. leen fekk dès les années 80. bu ñëw kii bay fekk bu ñëw bay bàyyi. amiin amiin yaa rabbi. amiin yaa rabbi. amiin amiin amiin yaa rabbi. amiin waay amiin. jërëjëf yaa rabbi jërëjëf. jërëjëf. waaw ça va bien. naka coono yi. yëpp jàmm jaajëf. soxna si nañ def ça va xale yi mbaa ñu ngi si jàmm ça va bien. waaw dañ ñëw rek leen ay teewul waaw waaw pour ziare si leen ah. bu dëgg ah kontaan nañu trop waaye ah jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen

grand mu demee ça va baax nañu waaw day am alhamdulilah waay dañ leen seet seen xale yi dañu leen ay xale si xol bi waa jàngeen bi yaa salaamaaleykum grand maa ngi ziare soxna si neen nga mu ngi doon ça va bien non loo bëgg ngay mën a am maa ngi tane masa waay masa masa waay xam nga lu ñëpp bëgg du yomb quoi masa masa masa dañ leen seet si woon rek andi leen ay xéewal quoi waaw bébé moom dégg nga lu baax la ¿ah? merci grand. Eh, lii boo ko gisee fii ci àdduna nit am xol boo xam ne xol bu laab la bu la nekkoon nga tëdd sa kër ak say million te yàlla may na la ko

def lu baax am lu baax sama maam Ablaye Wade daan na ko wax lu rëy am lu rëy c'est la c'est la vérité c'est la réalité Pape am na y a des ministères yu lépp xaalis te defuñu lii yàlla na la yàlla fayal boppam ñoo bokk Pikine ma lay xam li tël béy bi booy nga ma daan génn lu ne laa def ci àdduna mais nag yàlla gis nga yàlla na la yàlla defal naa ne saa yoo tëddee jaxanaay del wax amin ya rabbal alamin parce que ñi lay ñaanal ci Sénégal bari nañu parce que yaa ko def yaa ko liggéey yaa koo def gannaaw raay nga fa def fa nga dëkk la fa def bari na yal yàlla yo tey boo doon posé candidature un maire de la ville de Pikine am nga ko je vous remercie tout le monde ak ñi ànd ak ñëpp maa ngi di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla. merci <laughs> merci jërëjëf jërëjëf kàddu yi rafet na yéen ñu ngi leen di sant di gërëm ñaan tamit malade yi nekk ci hôpital bi yëpp yal na yàlla tudd seen bopp.